lañuy waajale màggalug daaru xuddoos ah, ñu ngi leen koy yëgal nag ca di leen ci soññi di ko jaarale nag ci kilifa yi nga xam ne nii ñoo ëmb daaru xuddoos moo di ci ndigalul eh, sëriñ Ahmadou Mokhtar ak jaar ci sëñ Ousmane Mbacke jaar ci sëñ Laat Ali mii commission bi nga xam ni ñoom la dénk ñu yore set setal bi ñu ngi leen ci nuyu ci seen tur ñii toog ñun ñëpp noo bokk benn pas-pas muy ndigal li bàyyikoo ci sañ Axma jaar ci sëñ Ousmane ba ci sëñ Laat Ali miy toog ci suñu wet loolu lañ leen bëgg a jottali moo di képp koo xam ne nii daayira boo xam ne aju nga ci diwaanul muridiina muy buntu këri sëñ Mourou Moussa yëpp ñu ngi leen di woo ci mbale mi ah, mbale mi moo di ajjuma ji jëm bu dellusee jiinu jëm rek moom lañ bëgg ñun ñëpp ñu ñëw daje fii ci Daaru Xuddoos ñi ci so jiital nag kilifa yi nga xam ne ni ñooy kilifa yi Daaru Xuddoos mu di waa kër sëñ Daaru Assane Ndiaye ci njiitul sëñ abdu Khadir njaay ci teewaayu maam Cheikh Say njaay mii nga xam ni ni moo jiite village bi di ci soññi nag kilifa yëpp. ci soññi eh, kilifa yi nga xam ni ñoo aju ci sëriñ Mbacke Gueye Ngathie muy seex si nga xam ne ñoo aju ci Darou Khoudoss gépp bàyyiwuñ kenn di ci soññ itam nag waa kër seex maam seex Ibrahima Fall ñi nga xam ne nii ñooy làmp yoon wi ñi leen ko ñi ngi leen ci soññ bu baax di ci soññ it sëñ seex ndigal Fall mi nga xam ne nii lépp lu ñuy def ci Darou Khoudoss cër la ci am boo xam ne nii suñ borom moo ko jox di ci soññ itam waa kër sëñ Madiba Sylla di ci soñ it waa kër sëñ Rijaal Seck di ci soñ itam monsieur le maire Abdou Ka mi nga xam ni moom la sëriñ bi dénk dëkk bi teyit moom am na ci taxawaay am na ci wàccuwaay ñoo ngi ko ciy soññ xam nañ yitteem ci Daaru Xudóos ñoo ngi ko ci soññ bu baax lépp liñ yaat bëgg di ko te mënuñu koo ñàkk lépp danañ ko ko yëgal mi ngi ci sax waaye dañ koy gën a soññi rek te xam ni dëkk bi noo ko séq di ci soññ itam mboolem dayira yi nga xam ne nii aju na fii ci Daaru Xuddoos bàyyiwuñ benn dayira ñëpp lañ lépp lañ soññ di ci soññ itam nag mboolem képp koo xam ne nii dëkk nga Daaru Xuddoos wala nga yeewoo Touba mbale mi nga xam ne nii sëriñ Modou Moussa moo ko daan def digle ko ci seetal Touba bàyyiwuñ kenn ñu ngi soññ ñëpp. kon loolu mooy kaddu yi nga xam ne moo bàyyi koy woon ci di soññee ci ndigalu sëñ Laat mii toog nga xam ni moo jiite commission sociale bi lé lépp lu ci manqué nag xëy na sunu matadee waaye ñëpp lañ woo bàyyiwuñ kenn bay sëñ soxna maam Isa Mbàkke ahlu café ñu ngi koy soññ sëñ Cheikh Lappe mi nga xam ni moo jiite mbale Touba mu mag mi ñu ngi koy soññi te moom it at mu jot bala ñu cee def dara dañ ko koy yëgal ba xam ni bis sàngam la ñuy bale daaru xudóos te loolu jokkoo nañ ci moom ba def ko ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm lu ci des rek sëñ Kamaal buy wax dana ko mottali wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi jël sunum nuyoo di ko def ci Cheikh Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ahmadou Moustapha waaye itam mu jàll ci sëñ Muntaqa Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ahmadou Bamba di ko nuyu bu baax ak di ko siyaare ñu ñëwee wàcc si ci mboolem ay jëwriñu Cheikh Ahmadul Maxtaar yi nekk biir Daaru Xudoos yëpp di nuyu mbooleem mboolem bi yëpp di jaar ci sëriñ Ousmane mi jiite liggéey bii diwaanul Mouridine sëriñ Abdoul Ahad Mbàkke mi jiite eh, commission sociale bi sëñ Cheikh Ndiaye chef de village mi nga xam ne moo jiite comité bi bale mboolem dëkku Touba bi ci ma waajtaayu magalu Daaru Xuddoos yi nga xam ne moom la ñuy wax isrina muharram di fàttali bu baax itam mbale mi nga xam ne euh, moo laltaay taay bis boobu te sëñ bi nee na woon bis bi gën ci bisam mooy bis bi muy wuy ji boroomam bis bi muy jàkkaarloog moom te bis boobu la ñëwoon fii Touba bis boobu it mbale mi euh, seetal dëkk bi lañ ci jublu waaye dana seetal it ay bàkkaar danañ seetal dëkk bi waaye dana seetal ay bàkkaar waaye itam euh, dana tax nit ki euh, xolam sell te it sëñ sëñ Mourou Moussa mi ko digle woon doon na ko def ci jamono ñuy bale mu di ko ëmb ci mbubbam ngir bëgg a barkeelu ci mbale moomu. Euh, bisu màggal gi ci boppam itam guddi googu am na ay yu bari yu ci xew yoo xam ne koo xam ne fanaan nga ko fit di defee noona muy jàng alxuraan jàng xasaayit di wax lu baax. di ko def ba asamaan si wecc ni guddi li mu laaj nga defee ko noonu ba mu egg yow yaa ba nga juddoo ci sa ndey yéen a yem ci guddi googu. kon looloo tax ñuy woote mbale mii ci turu sëñ Ahmadul Muxtaar mu jaar ci village bi jaar ci sëñ Ousmane jaar ci sëñ ñëw ci sëñ Cheikh Ndiaye ñuy soo woo mboolem gox yi nekk ci dëkk bi yëpp daayira yeeg euh, kuréel yeeg fu waay mën ne nga indi say jumtuwaay fas yéenee taxawu liggéey bi fas ko yéenee liggéey fii ci pencum Daaru Xuddoos nag la sees bi nekk muy village bi fi la ñuy daje def nañ ko ay commission de wut nañ ay oto dañ wut maanaam gasoil bi danañ taxawu nit ñi fas yéene ku ñëw ñu jox la oto nga dem goxi dëkk bi yëpp ñu fas yéene oto yi dem fa ànd ak mbooloo mi ñu bale mbale mi kon ñu ngi woo kuréel yëpp bunti kër Cheikh Moustapha yëpp ñu ngi leen di woo daayira yëpp ñu ngi leen di woo ñu ngi wax jëwriñ yëpp ñu soññi seen daayira ñu ngi wax ñi commission yi ñu tënk fii ngir war a liggéey ñoom itam nañ xam ne teel a xëy si teel a taxaw ci liggéey bi comme convoyeur yi itam daayira bu nekk war ngaa andi ay convoyeur yoo xam ne oto yi buñ taxawee dañ lay joxe nga ànd ak chauffeur bi di di surveiller liggéey bi sarse yi am ak la ci aju lépp nga loolu convoyeur yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxaw kon loolu itam ñi ngi koy fàttaliwaat bu baax mbooloo mi di fas yéene rek ñun ñëpp nu takku rek taxawaay bu rafet boo xam ne ci gannaaw sëriñ bi gannaaw commission bi Cheikh sëñ Cheikh Ndiaye jiite nu xam ne tey jii nag Euh, dafa dëppoo ak tamxarit waaye fës nañ yéen it soobu ci liggéey bi rek ba ba màggal gi ñëw ak jàmm. Euh, oto yi na bari euh, bii di koy tonni na bari gasoil bi na bari nit ñi nañ bari pas-pas bi na am jumtuwaay yi na am loolu rek lañ doon soññee ñu ngi jégg lu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.